naa la. Euh, alaaji jiili mu baax. waa sant alhamdulilah ñu ngi si jàmm baax. yaa ngi Paris sa répétition yi suba ak ngoon guddeeg bëccëg nga ne fii. damaa répété ba sa fan nu na rag di métti mais super étoile dañ ma wóor. ah mais donc waxoon naa leen du ko def. ñenn ñenn naan mën na ko dina ko def. man la du man la du ko def. dañ ma wóor waaye Bercy bi yàlla na taw. taw taw bu rëy. taw Paris du caaxaan. non yàlla taw la kay Bercy bi yàlla taw. ak gars di doon xaaree ci Albouri yeeg ci podium bi. Albouri non man man man waa France ku ne may woo Bercy bi yow yaa ñu fa indi yaa ñu fa indi mais donc war nañ ma. donc ak sama moo sama sama quelques mois yi ma jëloon enregistré ko ay donc peut-être ak ak je ak mais mais loolu yëpp voilà a sens yàqu na. ah waaw mais tamit li ma leen di rek mooy bersi bi yàlla taw taw bu rëy. waaw <laughs> <laughs> a jël benn image. yàlla taw Sénégal du ñu am image. waaw lu naan yàlla bu mu neex waaw. <laughs> damay damante bilaay dañ maa wor. non bilaay. non dama ne la mënu ko. ngeen ma mën ko man leen mënu ko. defu ko birtu bi kañ la birtu bi. ñu bari nee nañ seen xel defa ñaaw parce que Alboury bi boo ko yóbboo birtu ba mu daw <laughs> kenn du ko <laughs> waaw seen deuxième séance li mu leen jox baaxul. <laughs> Oh. mais tamit eh, man war maa daanu ak fi réew mi toll. ah, ah noonu la. la doon sóoraale. xam naa peut-être ma man leen sama xaalis moo nekk CNG man France même moo fa demoon damay damay damay découvrir xool ci xool xool xool environnement bi donc voilà comme que demee na noonu fi sama xel sax dama ko génne ci France waaw dëkk bu sell balaa bëgg a dem. États-Unis yàllaa ngi fépp mais siège am ne États-Unis fa laa bëgg France waa ma. waaye bilaa lu loxo def loxo mun na koo dindi. gis nañ la ci soirée Sidi Diop bi mu woy la way Alboury bu yëngu nga yëngu yëngal sa bopp loolu fan la waa loolu euh, fee tur boîte bi sax fàtte naa ko almadi. almadi mais Matar Diop suba teel xam nga. xaw ma daal. almadi la daal xaw ma xaw ma. Matar Diop moo ma invité te day jàpp sumay mbir Matar Diop suba teel. invité ma ci soirée bi. ma dem ma dem Sidi waay ma ma yëngal man ku ma waay ma yëngu waaw. bàyyi buur TikTok bi yaa ko moom yaa moom réew mi moom actuellement bi yaa tee réew. loolu yëgu ma sax yëgu ma mais tamit euh, est-ce que xam nga ne réew mi tàng na de. kenn waxatu ko. mais nag yow yaa gën a tàng de. ñu tàng ñu tàng. waaw mais man damaa juum. général laal. wala climat bi ngay. 16 ba. Alboury <laughs> aywa Alboury del teg na 16. Adama jox la sama bas nga teg la quoi. jëloon def ba pare damul day waaj a damb toogal. ba tey waaw waaw loolu. garab waaw maa am sama ay eh, suñu xarit suñu coach. waaw voilà. tey damaa xëy daje ay situation yu métti si moto laa yëg sama tubéy bi toj ah ma toog si bi daanu fu mu ne nii sa lu ma làmm mu dëgër dañ ma war man wor jégu ma yaakaar bu tax <laughs> Youssou Ndour dama berti <laughs> berti yàlla bu mu neex non en tout cas daal moom ah dañ ma war ndax ah bu ma wooyee ma dem de bu ma wooyee ma dem ah instant bi nii xaar ma xaar Bercy Waly ba xam. waaw mais foofu Waly wayu Alboury de. waaw yow may fee lépp dañ koy waxtaane waaw dinaa ko jox ay cours yoo xam ne dina ma way wala Sidi mu sell ma bon mais man man bi laa euh, def pour ku ma woo jotoo ma nga dundee yaakaar na booy mi ngi France. waaw da ngay tiit da ngay tiit fi ne nii ñëpp jàppoon nañ ne dem na. Euh. dama préparé laal valise. wër daal di imaginer toog di rêver ni ma war a diree valise biir aéroport dugg biir France. laa a war a mën a communiquer yooyu yëpp voilà ma préparé ko bien avant. oh mais Youssou juum na <laughs> Youssou du neex. merci merci dina taw taw te lépp lu ñu fa lekk du neex. <laughs> doomu aaw laa man ku ma war koy gis. ah tamit association doomu man président laa fa man ku ma war gis de war ma mais garaawul. ay yow dem est-ce que est-ce que instant waxul woon Alboury na ñëw est-ce que gars yi. xamuma xaw ma maa ngi nii daal toog di xaar yàlla waaw. léegi tamit jékki-jékki rek si scène bi yu Ndour jékki-jékki rek na Alboury demal te ñëw rek na ana Alboury lu ko lay Alboury beneen Alboury géer la. beneen booy bu jël sa tur jël sa style jël sa lépp nooy def. non loolu mënta ne benn la woon daf maa kii sànni ma ci réew mi amul keneen ku mën a jël sama place. du neex. Bercy Bercy à tout moment dafa toog ngeen xool ba gars yi ñëw si di ngeen dégg ne taw na wala di ngeen dégg ne Eh, sàcc nañ ko wala Youssou Ndour réer na xam nga miinul foofu wala Youssou Ndour mën na sax réer biir France wala ñu ramasse ko. version du am dinañ am ndox version dina am ndog ndog de. actuellement dañuy dugg ci li nga xamante ni moom la la ñëpp xamee mooy làmb. promoteurs yi ñu ngi contacter Albouri Albouri pare na pour jëlaat avance bu ñu tabaskee ba noppi mu bëriwaat wala gars yi waxaguñ la waaw instant bi gars ngi def ay démarches ah promoteurs yi ñu ngi def ay démarches xam nga euh, lamb yi ñu may proposé nag bari na mais Moget mi ngi dox sama combat maak Issa donc si ñoom la des quoi mais man moom même bu dul Issa Pouye sax ak ku mënti doon na nekk mbër rek moo waxtaan seeg staff bi ñu jël man bëre rek laa bëgg man mën naa bëre samedi bëre dimanche. ñu ngay di leen daan Issa Pouye bokk ci ko. non ku dul Issa Pouye laa la wax ah su ma bëree yow war naa la mën a daan ndax lépp luy daan mbër su xëyee ci laay ne muy entraînement lekk ba suur tëdd voilà réservation bopp ci loolu laay dox te loolu ku ci nekk war nga mën a daan ku ne. teguma ma sama benn bët ci benn mbër man kuran kuran bi laa teg sama bët ah bu dul Issa Pouye instant bi euh, si Issa yi laa mën a wax. ndax ci moom la ñu dox bu ñu doon dox beneen mbër tamit euh, moo wax la mais gars yi ngi def ay pro ñu ngi may proposé ay mbër mais donc man maa leen di déglu quoi mais lamb laa fi nekkal ku ma lamb booleel ma bëreeg yow. promoteurs yi amul kenn ku ci ku ci ku ci bëgg sa non promoteurs yi ñu ngi may woo bu baax a baax a baax. promoteurs yi ñu ngi may woo bu baax di wax samay combat mais nee naa man moom bàyyi ma fi benn mbër voilà baay ma fi benn promoteur. ku ku ñëw eh, def def démarche waxak man ma wax ak sama staff ñu juboo man xaalisu làmb dama ciy bëgg lekk ji. yaa ngi lekk nag. ñeme nga yàlla de. mosoo lu ma mos. ji yére bi dama ko àbb dama see dox tànk mu xotteeku. fu lu may làmb bu la yëpp xam nañ ko. <laughs> génn ci <laughs> bi ah. ah? yoruma wéru jaay lay dalal tabaski bi rek li la war a jox xar du jeex. non xesa bi amul xar. jiili ba baal yooyu man sama loxo joru sama digg ginnaaw néew di dool lu ma yaakaar mu tas nañ wax nag man foog ma maa gi tas nii bersi bi stressé ma fi mu nii ma jeex tàkk gisoo ma nii non su ma demoon bersi ba ñëw tamit dama demoon bentoo damay commencé dox ci social di jàppale gars yi mais sama yaakaar di mu tase li ma jik saye <laughs> yàqu man dem Albury jaaxaluma man ñëw bi moom naroon yéem Albury bi jigee Paris ñëw war a wàcc aéroport site yëpp daw topp ko. Alburida donc c'est-à-dire. man déggoo ma de man man man mën naa euh, vingt cinq ans changé si deux jours. non mënoon naa dem biir si ñëw rek changé. dootu ma ne ah dëkkal. mais imagine man ma ñëw rek dégg attaché vers tout ceinture voilà ma seere sama bopp. fas yéene waaw waaw fas biir Paris hmm, dox ci suuf si naan ci ndox mi dugg ci duus yi. Oh, mais soo waa tuur na samay pexe ma ne soo samay pexe yàqu na ma la na taw. est-ce que ñu nga ah dañ ma sama non lii lii lii ay ay loxo ngi ci loxo loxo ngi ci waaye lu loxo def loxo mun na ko dindi bilaay dinaa jugaat sama bopp non ñoom ñëpp baat moom euh, moom yaakaaruma mun na maa liggéey quoi mais dama yaakaar ne moom moom moom moom ay raba ngi ci moom yaakaar gu tas gi moom ay raba ci rax <laughs> sa waaw mais mais noonu la demee nag tey ñu ngi nii ci tudd suñu coach maa ab sa xama ak jabaram wax dëgg yàlla mbër yi boo boo xoolee mbër yëpp a ngi fi mbëru parcelles yeeg mbëru géejuwaay yeeg moom dafa nekk salle bi nga xam ne moo ñu entraîné fi ñu fa la mu nekk suñ coach wax dëgg yàlla di jàppale mbër yu ndaw yi ak mbër yu mag yi boo xoolee waa Fass a ngi fi ñëpp a ngi fi wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal xale bi tamit juddu dund xam nga ba euh, teral yaayam teral baayam ndax maa ab dafa baax wax dëgg yàlla te yéene nañ ko lu ne yàlla na ko yàlla taxaw xam nga mais dëkk bi tàng na waaw si il fait très chaud. il fait chaud kay. oui. Albouri.